Sultan. niir yi naan ba sax danaa pat kenn du jooy. fas yi dox kenn dootu nga xam ak mbaam yi. jiit yi ak jaan yi fett kenn dootul fett kenn dootul mat ndax war man Sëriñ Tuubaa kon na ñëpp àgg suuf ñu diglu kàddu Sëriñ Tuubaa ndax suñ bi daa bëgg ñu jariñu ci ndax tudd wu turam day defar jëmm ci saayir ak ci baatin mag ñi fi nekkoon ànd ak moom xamoon naan màggam gi ak teddam gi ak tolluwaay ci ak bëgg gi ko suñu borom bëgg door wax barke borom Tuuba dawoon ko giñe giñ mukk xarat ku ci musa am ci mag ñi nga wax muy kun ci barke borom Tuuba nga ko la doo wax barke dakk waaye ñooñu dañ ko xamoon ñun dañ ko xamoon kooku la sëñ bi bëgg ñu jëriñ noonu ci moom la ñu woo jëme ci moom ndax bis bii ñun dañ ko doon tudde ab siyaara di ko siyaara Sëriñ Asan mu ne déedéet def leen ko sant Sëriñ Tuuba kon ñun fas yéene teewlu ko bu mënta àgg fa mag ñu àggoon ci màggal ko ak bëgg ko ak di ko dund ak di ko yëgit ñu xaw ak nit ñi ak seen dëgg ñoom ña nga xam ne xam nañu woon ñoom xam nañ ni Serigne Touba naxu leen te du ak naxe te mos na nax kenn ci àdduna lépp lu leer ban jàpp ni leer na ba mel ni jant bii mbiri Serigne Touba moo ko gën a leer soo sa amee numéro bi nga laaj ma lépp lu dëgg mbirum Sëñ Tuubaa moo ko gën a dugg yoonu yàlla yëpp seytaane miin na ko bur yàlla yu bëri seytaane mbir bëri na leen mbir yu bëri bëri ci ay mbir Iblis jot na fa mën na caa rax lu bëri ca bokkul ba mu des jëmmi Sëriñ Tuubaa loolu ku ko jàpp te dëgg kon mucc nga ci Serigne Touba mucc nga ci seytaane moo tax mu ne may joxe taman biir temps dafa maha mena siyaati mena siyaatiina fa sukri yasmaa képp ko aju ci man te muy dëgg mucc na ci iblis ak njabootam gépp ñaar wala ñetti tam loolu lañ ci waxtaane mooy doomu aadama mbindeef yëpp mbindeef ndax ñaar ñoo am mu ne ñun ñëpp ak alxaaliqu aji na ci man nga caa doon ne ak al amru mooy kon mbir yi fii ak mbir yi kenn seen borom muy alxaaliqu mbir loo gis ak loo mënta gis loolu laa ko ak loo mënta daj ci mbir yi la bokk lu dul yàlla rek muy kaw suuf. asamaan ak li mu bokk lépp suba ba mu yor lu dul malaayka lépp mi def la xam dara dara dara dara as ci géej gi Sëriñ Tuubaa moo tax mu indi loolu kon loo xam lu mën a doon ak loo xamul mi def la mbindeef yi bari nañu lool waaye doomu aadama suñu borom da ko cee seet di tànn ko teg ko nii ñu war a xam ne kanam naa bëggee aadama kon nit ñi ci teraanga gi suñu borom defal doomu aadama defal ko kenn defal ko jinne defal ko malaayka donte ko nekk na am na say karamaat waaye ji yàlla defal doomu aadama defal ko kenn ndax lan niiru gën a niiroo ab rasulullah ab bind moo tax sa borom dafa leen karaama ci géej gi ak ci jéere wa faddalnahum ala kasirin mimman xalaqnaa tafdiila ñaari catégorie lañ ba tey ñi gëm yàlla ñooy ñi nga xam ne ñoo dëggal ne yàlla am na ñi ko weddi mooy weddi amul yàlla gi kon weesu nañ foofu ñu ngi si ñi gëm yàlla léegi ñi gëm yàlla ñëpp kenn ku ne am na ci yonente bu jaar ba ñëw jamono ci diine nekk yonente yi ñetti téeméer fukk ak ñett lan ñun diine yi Muhammad kon naa ko soxla yàlla kon si ñëw na jot jorof ñëw ngi war ci joom jëpp laa na laa naa ke waaye yow ci de bi ko sulle sant émission bi nag waaye dafa nag ñu mu sant man naa ko bëgg naa ko tane naa ko yëpp waaye na sagaa yii nag mbokk ci xam ne dana la xam nga tane naa ko am loolu mu ko wax xanaa faw dana mu dagg sa ab diir ba naa ko mu waaye ndax doon ko jaay mu ko am kon génn naa ko dinaa ko yegg bokk na si ñu gaaral ko nag yi tax

yéen a ngi si ngir bëgg bëgg mu faatu ndax li muy woote kat tuuri yi ba des leen gën a mu taari li muy woote ba saxee benn tubaab dootoo amee mbooloo kàtt gi mu toog li muy woote ba amee genn buur dootoo amee nag kon na ko rek waaye kenn moo ko rek jëlee ko Mbacke Bari dem jeewal jeewal ma fa la seetaane boo demee ca rajo yi nga xam ne moom loolu laa soxla bëri na ñu yaatu kaa xet ndax am na ko mën a teel keroog jëfandal ak saafu àtte ak nuyoo ak xamante jeewal la ko suñu tubaab defee ci bànqxu bëri. seen ndëgg nag ci laalu muus pour yow mi nga xam ne jàmm nga njëriñ seen ndëgg ci laalu muus dina sodaag mboolem bi daa ko doon waaye ci jeewal la saafu àtte ñëw waxtaan nañu suñu suñu borom si ñëpp bisimilah si ñëpp ñëpp moom ci loolu la ko gis nañ léegi. yimɓe so daña sonmo sëriñ Tuba sëriñ mi gernade baɗam yin baɗu baɗama sannega a baɗo iɓɓo ham jatto ko sono so iblis mu des gandu mu nat jonɗa kam kadi iblis yuhono ko yuho ko fam baɗa jiɗutu ko yuhon ci abdu kerla kerla baye hasan wa istayna lahum seytan teab suratul anfa mamna wa qala la man lakum yawmin min anas وإني جار لكم فلما في على ndax yéen daaw na ci yéen ci yéen a bëgg natt moo di bokk na natt partout ne bokk na natt nekk ordinaire si ne natt daa wéy ci li nga bëgg rek li nga bëgg a amee natt bi nag day nattee jënd te 285 lay doon te boo ko yem la bu di seet ne un loo xamante ni ma ñàkk soo ne mënatuma ko nan jëndi contrat bi loo xamante ni yàlla ñu ko ñàkk. dana la boole noonu yoo xam ne di nga ànd ñoom juróom-ñetti at loolu la mën a def boole boo jàmbatee wàllu sant la nga naan lu amul cere bu ko def bis naka tey toog ci ndab di lekk musul araam la soo def tibbee ay ay jib lekk musul loo amul cere bu ko def bis naka tey tëdd ci am na di nelaw araam la rek boo tëddee di nelaw di xaar naa loolu amul cere bu ko def woo ko sax xesal woo ko sax sëyi ko 你以为咱们家 di daa wax naan kii mu jëndee comme que jaayoon dina ñàkk mu dem Ndar yan ba métti lool ñu jóge fa fanal ko bari gaynde ak ci loxol nga yóbbu ko Dakar ci ñaari néeg ñaari bi yëpp fanaan ko dara néeg boo xam ne ay pousse ak yaram ko doon tamit masque courant ak xeetu pousse yu nekk wax na julli nga fi ñaar rakk nee na yoon mënut a sujjóot ngir takk su ko sujjóot sa jabar bu ko bu sa yaa ngi jàpp rab yaa ngi jàpp courant kaa ngi mas bu sa kaa ngi jàpp ngir bëgg a rey suñu boppam ñett booba tax na sa sa nekk sa nekk mu nekk mu jóge fa ñu borom xam nangu xam ngeen

yonent bi xare na ko juróom-ñetti xare yoo xam yor na ko jaas yi xeex am na ci xare yoo xam dóor na ko fii ci jëm ci jëm xar am na liggéey bu doon mu amoon su ma saa la génn ba ba kaaloo kaale mu mën ma mën ma ñëw jiitu day loolu leer nañ ñu waaye liggéey bi moo la xamal ne kii kii mooy rasul tey ab xare dafa dama xare ko xare yi bépp nag yii day am lam yii du am lam rek yii mas nañ leen suñu tubaab juróom-ñaar juróom-ñetti at muy xarit mi daara la ak xalima ak tëgg la suñu tubaab yor këram yor fital yor poisson yor gàncax yor fépp pexe di dóor el ci jotaay ba xaram bi yàgg yàgg pour nga ni sëñ bi Ibrahima naan leen maa koy jëf suñu saa nga wax de da ngeen daje gaa yi ne woon ba sax ñii wër ci kii màggal def ay soq léegi ku màggal daa jot ñu jënd aw nag dëkk ci màggal bi ba tey jëm jàkkal ci bàmmeel ñi màggal màggal suñ ci baa gi suñu borom bi la teral waajal na ci àjjana bi ñu wàgg la di fekkee gii muy màggal yi maam yi dañuy gis daa ne

jumaat yi beliau léegi tetap def étape bi ba bis ma jàngal ma am na lu may alxamis

junni junni junni milliards ubbi na fa liggéey si tubaab yëpp mën la dara bul ba ci mën a si xaar nga jàng ne maqaamu Sëriñ Tuubaa amul xawsu bu ko may xawsu luy xawsu wax bi mu muy ñëw bu ginnaaw rasulillah sees loolu ak yu wàññi tamit la nee na ah jamono jamono ji ne de waaye jamono waxoon nañu jamono jamono dafa kii jamono dafa kii ñu bindee rek woon nañu woon dara danaa indiwaat fi mu ne si lépp sees loolu ak ñu ne ko xaalis anisam anisam yéen a ngi ko yaay sama na ko fi jamono jamono moom fukki miskin nga leen ndax sa diin ji du jàpp ku mel ne Sëriñ Tuubaa mën na ko jël jot kon ñu bëggoon a liggéeyal sëriñ bi ndax ak ji jot na bu faal wax ñëwaat ci moom kàddu gi nekk moom mais kon mu ne nag ci ma gënoon def sa waaye mbir yi bari na fi xel kon ñu war a def ginnaaw ñu ma tudd Thiara seen métier Thiara maam Cheikh nee na diwaan diwaan ngay ñëw malaaka yëpp ànd suñu borom war a indi suñu diwaan ci kaw suuf foofu ceeb bu tànn nee na kuréel yi sama borom fekk kuréel yi fekk indi ma àdduna ngir ma liggéey seen tubaab ko si xibaar yi nee na ñoom ñoo na nee na boo xam ne Cheikh Ibrahima Fall du fi ñoo na adduna ay yoon waaye li ko taxoon ñëw adduna moom bàyyi ñu mat bàyyi na ba jamono tàmbali ba tey jamono ji moom jàpp borom jamono ji moo soxla ñëw naa ngir seen ba xam mat moo bàyyi ma jaay ñëw wóor adduna rek ma su ma wóoree ba sonn ma ne Cheikh Ibrahima Fall man kay wéyoo ma ne ko sëriñ moom nga sëriñ daal ci jamono waaye war naa ba jamono de ñu ko ñu ànd ñu ñaan benn حملني ربي بأن أشرها بأنني ملاس وهما وبصرا ومن أراد الخير في كتله دارني فليرسلي وتجيب أبن الأخر من يمسلي لأنني ملاس وهما وبصرا ناس إبراهيم بن عام نقول سيرنا إبراهيم وجهه سيرنا من بعد النور سيرنا بعد النور سيرنا من المنور بعد سبتي مسجد وعمل كيمة مطلوبة ما جارس منه مو كان ما جارس مو يبغى xamone ba ñaan baat bi wala nga xam ngeen baal nga ay kurtus la tiazal suñu jox la ibrahima bu demee daar nga xam na may xamé neena yi nga may xabar ak ñaan ne ko bokk la ci ad ñepp la jé sama doom yi yépp ay wala ma ko sama jaab na sama tamit ci xamul ba la waay waaye xadi ba sama la ko sama ba mo ko sama Ibrahim new ñëw jamono gis sëriñ bu ko mat sëriñ si Ibrahim Ba ñëw jamono gis bàyyi bu ko mat bàyyi ñu ànd ak ñu ñu lu ne jaam jaam yàlla ne waaye suñu nih, nih yëpp ini dëkk nañ taw it ni ñi la yàlla nañ bañ a may nañ dëggul nañ bañ a fenn liggéey rek seen borom suñu taxaw na inscription bi nga nekkoon. waaw sëñ bi